aoudu billahi min asheytaan irajim bismillahi arrahmani irrahim mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ginnaaw bu nu sante suñ borom subhaanahu wa taala ñu ngi leen di bu baax di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen dañaan suñ borom subhaanahu wa taala mu boole ci defal jàmm te saxal ci njub barkeb alquranul karim di leen jéggalu bu baax a baax a baax ci gëj gi nu gëj ci liggéey bi bu ngeen gisee lii li ko waral mooy dafa amoon lu suñu borom dogaloon sunu kaw loolu moo tax ndax kullu nafsin sa iqatul mawti bépp kenn bu ñam dund bu nekk danga ñam dee suñu borom dogal sunu doom ju wàññeeku woon koo xamante ne bii sama doomu mag la boo xamante ne bii ñoo bokk benn baay ab taawam mu tuddee ma ko doomam ju wàññiku woon fële ca Touba ca daara ja fa la nekkoon sax dëgg mu doon koo xam ni ku sore woon ci man la yàlla xam na ko gone gu laa biir lool te fonkoon ay waajuram te nekkoon doon jàng alxuraan ba dogal ba wàcc ci kawam di sant bu baax ñi nga xamante ni bii ba nu yëgee mbir mi woo nañ ñi wet gu nekk sëriñ Ablaye Mbay Kër Masaar ak mboolem ñi nga xamante ni bii liir nañ sama statut ànd ak man naqar woowu di ma ko jaale di ñaan suñu borom yàlla bul leen ko gaaw a fay barkeb alquranul karim loolu moo tax boobaak léegi daanaka appel yi bari na lool mënuñu ma jot ba bën a gën si lool rek laa nekkoon waaye du dara ndax am na lu boo xisee ba dal sa kaw te mu doon lu bette lool loo xam ni nekkul koo xam dafa tawatoon xam naa dema dikk rek mu dem ci anam moo xamante ne bi anam mu metti la lool loolu moo tax lu bari tëluñu ko woon ñenn ñi nga xam ne woote naan walla ñu envoyé vocal di leen jàpp ni dara la waaye loolu rekk la ma di leen dellu di leen ñaan di leen ziyaara di leen ñaanal yàlla ak di bëgg ndax wax dëgg ñu bari ban ko yëgee woo nan ma ñii envoyé nan ma vocal ñi ko yëgul itam leer na ma ne wallahi nu ko yëgoon noonu lañ koy àndeek man ndax xam naa cofeel gi ci man ak yëggeeg bëgg gi waaye loolu lépp may ñaan suñu borom subhaanahu wa taala ngeen defalal ma ko ñaan rek incha allahu rabbi fu mën a nekk ci kartanuk suñu borom subhaanahu wa taala bismillah ci kartanuk suñu borom subhaanahu wa taala fu mën a nekk rek incha allahu rabbi maa ngi ñaan sama diggante ak yow ci sama diggante ak yow kóllëre gi nu ànd li wacci laahi taalal karim xale boobu nag ma ko defalal ñaan mu ngi tudd sëriñ seex Waalo Sarr képp koo xamante ne bii rek yaa ngi dégg sama kàddu gi maa ngi la koy sas moo xam junniy lixlaas la moo xam téeméeri lixlaas la moo xam junniy bismillahi rahmaani rahim la sëriñ daara yi nga xam ne ñu ngi dégg sama kàddu maa ngi leen koy jotal képp koo xam man koo jàngale ay kaamil maa ngi la koy ñaan sama kóllëre ak yow ak sama diggante ak yow ngir jëmi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ndax ku sore woon la ci man yàlla xam na ko sore loolu samay waajur képp koo xam ne man nga ma koo defalal ñaan rek maa ngi la koy ñaan xëy ma kenn ak ku mën a doon wajhillahi taala karim te buy ñaan mu jiital ci boppam jiital yéene waale ci mboolem julit barkeb alquranul karim loolu rekk la waaye du dara du dalee na bañ a jël du bañ seeni vocal waaye loolu moo daloon suñ ko moo tax daanaka tëlatuñ woon lu bari waaye alhamdulilahi rabbil alamin ndax dund ak dee ñoo ànd ci na koo xamante ni bi ci daara la nekkoon te it demee ci ndigalul waajuram kon alhamdulilah tey ñu indil leen secret boo xamante ne bi képp koo xam ne danga nga bëgg a tukki képp koo xam ne da bëgg a tukki tukki bu gaaw ci kàttan ak suñu borom subhaanahu wa taala nag ma dégg te def li may bëgg a wax maanaam réew ma nga xam ni fa nga bëgg a dem bu fekkante ne bi Italie nga bëgg a dem wala Espagne wala Amérique wala wala Belgique wala Argentine wala Brésil wala États-Unis réew moo bëgg rek da ngay réew ma ba xam ñaata la ci ab lim bu dee nga adat lim bu mu la jox. nga bind ko allahu samadu allahu samadu bu dee États-Unis la nga adat ko lim bu mu la jox nga bind ko allahu samadu maanaam réew moo réew moo xam ne bëgg nga faa dem rek da koy adat lim bu mu la jox moom ngay bind allahu samadu boo ko bindee allahu samadu ba noppi nga def ko saafara bu fekkante ne bii am nga dara loo xam daa bàyyikoo ci réew mooma moo xam ku fa jóge la indaale ab yére wala ab sërite loo xam daal leer na la daal ci réew mooma la jóge nga defaale ko ca biir saafara sa lu mu mën a doon baax na bu dee xaalis la baax na bu na jóge la ci réew mooma lu mu mën a doon baax na nga defaale ko ci saafara sa nga sangoo ko neuf jours waaye nag diirub li ngay sang da ngay booleeg di ko zikkar allahu samadu li mu turi réew moomee da nga koy zikkar nga di ko sangu boo koy sangoo tam boo noppee di ko zikkar suba ngoon allahu samadu li mu réew moomee ci kàttanu suñu borom subhaanahu wa taala bu neuf jours yi matee day ci kàttanuk suñu borom balaa yàgg da dem foofe ci réew moom ci kàttanuk suñu borom allahu mooy yàlla wi gën a màgg ñu koy wax ismu zaat samadu nag ku nekk xam na ko ndax mu nga ca biir lixlaas moom itam te lixlaas moo doon loo xamante ni bii mën naa ne carte d'identité suñu borom subhanahu wa taala la kon lii daal lu am solo la ci képp koo xam ba ngaa tukki dañaan suñu borom subhanahu wa taala mu sott ci am yërmandeem akum dimbalam barkeb alquranul karim defal lencu la kawee seen jortu barkeb Seydina Muhammad wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu